man may maa tudd mbay Sall dëkk fii ci Touba nekk président association CEDES bu Touba bi ginnaaw bu loolu wéy nag ñoo ngi nuyu sëñ Mountakha Bassirou di ko ñaanal yàlla na yàgg yàlla yàggal ko lool te wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gi <coughs> noo ngi nuyu ñi nga xam ne dañoo jiital Safinatou Amaan fii di ci kaarang dëkk bi di war may dëkk bi ndax Touba ku bëgg da nga koy war maa sëñ Lo Moundou Lo Ngabou noo ngi koy ñaanal yàlla guddul fanam di ñaanal président de république yan bi ko sunu borom jox ci Sénégal mu yóbbu ko fam ko bëggee yóbbu ko nam ko soobee tan ànd ko ak moom ndax yaakaar lan amoon ci moom <coughs> ba doyloo ko fal ko <coughs> bu loolu amee nag tey dañuy jooytu suñu bët dafa xong cooy ci affaire santé fii ci Touba district tuubaa ndax nag bu fekkee ne dañ nekk dañoo ñëw fekk nu fii ci tuubaa ñu ne dañ xale yi war a faju danoo bëgg ngeen lebal leen seeni bor nu fay leen ñu naan ko CMI nu lebal leen ko ànd ak ñoom ca loola boobu ba tey 2017 ba 2018 ba 2019 ba 2020 di bëgg a jeex remboursé wen nu benn dërëm joxuñu nu waxuñu nu loolu dana nu jaaxalte te dana nu métti tan dégg ñu ne gouvernement bi dégaase na 15 milliards pour époncer bor yooyu loolu mënuñu ko nangu mënuñu koo dégg duñ ci d'accord tey ndax Touba daa bokk ci Sénégal ndax mooy dixième capitale du Sénégal te pot de santé yi fi nekk bu ñu ko seetee lu mu néew néew néew poste de santé mu ne ñaar fukki nit a ngi fay liggéey te ñaari nit la ci état di fay kon la des sedda si ñu di fay kon sedda si Touba seen gàcce ngaalaama sedda si Touba seen gàcce ngaalaama seen Sénégal yëpp seen gàcce ngaalaama waaye na deux amee nu 2017 2018 2019 muy millions yu bëree baree bëri Touba bokk ci Sénégal deuxième capitale capital Sénégal ñu génne quinze milliards joxuñu ci Touba lu may 18 millions. ne day fay loolu mënuñu koo dégg duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nañ ñu jox xaalis parce que porte yi am nañ problème mënuñoo fay seen personnel te nii bu ñu continuer paj mi day arrêté paj mi day arrêté parce que nit ñu liggéey te du leen fay te duñ am lu ñu fayee covid 19 bi mu fi jaaree planifié na poste yi ñu tegaat ci ñu ne déetewaay ñu ne seemi bi remboursé wuñu te ñu ne remboursé nañ Sénégal gépp 15 milliards loolu mënuñu koo dégg te xaalis bi ñaari xaalis la bii médicament la bii nan ñu wax suñu xaalis ñu yóbbu li ca médicament ba euh, a faje la nga xam ne bi fay liggéey na pañ ma dana bii nu fayee ko ñi nga xam ne dañ leen ko amee ndax ñoon ko amee te atte bor ak fay te bor nag du am rek parce que gàllankoor a ngi ci paju te boobaa di nga xam ne du ñoo du nun ñi ñoom ñooñee nañu jox suñu xaalis 2017 2018 ba 2020 ngi bëgg a jeex te fay ñu nu benn dërëm. te poste santé yi nga xam ne ñoo fi nekk santé santé bii nga xam ne moo nekk dëru 28 rek lu mu néew néew amee nañ ko lu mu gàtt gàtt amee nañ ko 160 millions. poste yi ndaw yi si gën a ndawee yi si gën a ndawee kenn ku ne amee na la 20 millions. kon jàpp naa ne loolu soo amee nag bu pare ñu ne époché nañu bor yi loolu mënuñu koo dégg tey mënuñu koo dégg suba te ko nangu suba duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu nañ ñu fay nañ ñu fay suñu xaalis bii loolu la ñuy directement mu jàppale nu ci ministre de la santé ñu fay nu suñu xaalis bi loolu lan amoon loo xam ne nii loolu lañ lan war a wax ñoo ngi koy wax nañu jox suñu xaalis jërë ngeen jëf koppar yi ci xayma mënunoo ak exactement amul chiffre exact bi parce que facture yi 2017 2018 2019 woo nañ ñu fii ba facture yëpp defar nañ ko ba jox nañ leen ko mu ngi seeni loxo kon bor nag boo demee ci bitig ba ab fa leb fa bor yow ma leb xam nga la nga leb xam nga ñu xaalis bii atte bor ak fay bor ak bàkkaar yi yàgg du ko dindi fay rek mbaa nga tuub ko na jox suñu xay bi ñokk seeni borom du nu nangoo nu mukk ñu éponse nañ yi duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba nañu jox suñu xaalis bii loolu rek mooy wax ji noo ngi leen di ma daal loolu laa amoon lu ma ci wax maa ngi leen ñu ngi leen di gërëm bu baax nag wax ne mbooloo ñii ngeen gis ñii mbooloo la moo xam ne bu xoolee fanweeri post yi nga xam ne ñoo ne ci diiwaanu Touba ak salle santé yi ñoom ñépp ñoo àndul def benn bolok wax ne def nañ ay réunion yu bari ngir càmbar liggéey bi xoolaat ko waaye fal président poste yi nekk Touba yëpp nga xam ne comité bi moo xam ci góor yi wala jigéen ñi ñëpp bokk nañ genn kàddu euh, tënk seen li ñuy tënk waaye fal président fal vice président fal trésorier fal secrétaire lépp loo xam ne xew na ci kenn nañ xam ne mbooloo mépp la euh, concerné kon du kenn rek moo fi taxaw wala ñeen rek fi taxaw dañoo wax ne mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk Touba. te liggéeyal askan wi te askan wi itam li li nga xam ne dañ koo teg ci suñuy loxo bëgg na lépp lu ñu ci def mu leer askan wi ndax liggéey bi daa jóge ci askan wi war a delluwaat ci askan wi kon buñ ci gisee lu nu xamul lu nu jaaxal war nañ koo laaj ñoo ngi nuyu ñëpp nag di siyaari ñëpp